Euh, juge bi démb daal euh, un mois avec sursis la maanaam lu mu dul tëdd ak amande bu cent mille francs CFA. waaw mu doon beneen euh, beneen mbir boo xam ne dama naan sax clap de fin ci benn feuilleton bu fi amoon judiciaire bu bu bu ñëpp doon naqarlu parce que dama jàpp ne histoire politique gu Sénégal dafa jot nag léegi suñuy responsable politique yi am benn taxawaay boo xam ne dinañ taqali ko ak procès dem dikk ñëw lépp war a doon ay débat lépp war a doon ay waxtaan lépp war a doon loo xamante ne ay échange politique doon ay échange constructif yoo xamante ne dina am solo bu baax a baax ci askan wi nga xam ne dañuy toog di taataan yooyu lay xibaar mais malheureusement euh, li ñuy gis mooy xaxarante wax ju ñaaw loolu foo ko gis ak wax ju ëpp ak ëppal foo ko gis toujours yoon daf ci am yoon euh, loolu rek mooy war lii di am mais dama yaakaar ne nag fi ñu toll nii acteurs politiques yi nañ am plus euh, hauteur jël plus de retenue su ko defee ñu moytu ay procès dem dikk dem dikk dem dikk yëpp amul benn njëriñ amul benn sens bon Bougane génnee na ci ak sursis mi loo xam ne ñëpp ñëpp a ci d'accord parce que bëriwul néew na bokk nga daje nit ku ne ne damaa bëggoon mu delluwaat ak loo mënti wax ñi nga gis ñëpp liñ daan wax mooy yàlla nañ ko bàyyi mu ñibbi këram nañ ko bàyyi mu ñibbi dem campagne yi donc ñëpp à l'unanimité dañ doon wax ah wax dëgg yàlla fukki fan yi mu faris na nañ ko bàyyi mu ñibbi këram kon démb bi ñu ko bàyyee mu bi ñëpp ci ànd ñëpp ci ñëpp ci d'accord ñëpp ko rafetlu maintenant léegi nag li am mooy pour man moom nag moo war a xoolaat toogaayam waaw moom moom Guèye Dany dafa war a xool toogaayam. Mm-hmm. parce que moom dog nekkul ci opposition bi. façon bi mu bëgg opposé woo est-ce da cee bëgg gën a fës waaw daf cee bëgg a gën a fës Amina mais mm-hmm. bëgg cee gën a fës tamit am na façon am na noo koy wane boo on dirait que moom dafa am lu muy woy leader opposition daal maanaam leader opposition pour moom am fit la mais dafay juum du loolu mm. leader opposition du am fit déedéet xam nga la la xeexu mayen la affaire bopp la mm-hmm. leader opposition foo fekk group ki ci gën a ëppal moom la ñuy njëkk escanté boobu moytuwul mm-hmm. maanaam bu ñëpp taxawee ñëpp toog ngay jaay fit jaay guerrier ku njëkk ñëw yow la njëkk lijjanti sa cas ki ciy gën a génn mooy ki leen ëpp xel ki ciy calculer kiy réfléchir mais façon bi mu bëgg opposé wu dafay sonal boppam rek li ci gën a reetaanlu nag mooy boo bu ma bu ma gisee léegi buggaan bu toogee Sidiki Kaba toog kase toog nga def tuuti après nga gis Abdou Mbow ñëw jàppale ko gis keneen ak keneen ñëw après retaan daf may jàpp mu ne donc voilà yow système nga doon xeex après tu te retrouves au cœur du système mm-hmm. est-ce que yaa comprendre uh-huh. su demee bokk ji ab intercoalition wala coalition mu ne waa kër Macky Sall laa ngi fa dem ànd ji te ak la mu fi doon wax Khalifa Sall nit ñaa ngi koy fàttaliku bërki dem ma ànd ji ak Barthélemy Diaz ànd ji ak ñëpp te yow nga ne woon système nga doon xeex tu te say kàddu. waaw gis nga. donc yooyu yëpp ay ay ay mbir la yoo xam ne dafay dafa dafay dafa dafay mën na mën na ko mën na ko topp par rapport ak démarche politique am donc soo comprendre anam bi nga xamante ne moom lay moom moom lay defee pour man euh, Tamba bi war na koo jàngal dara parce que mm-hmm. gis nga bi ñu ko jàppee teewul ñeneen ñoom ñaa ngi doon campagne. démb ñëw nañ jàppale ko moom génn man nee naa ku koy dimbali di ko conseillé na ko wax mu moytu nuñ ko tëjee tëj bu yàgg buñ ko fi tëjee tëj bu yàgg dañ koy fàtte. Mhm. loolu moom amul sikki sàkk. buñ ko fi tëjee tëj bu yàgg mooy façon bi gën a gaaw maanaam ay 6 mois wala ay 3 mois yu nii mooy façon bi gën a gaaw pour askan wi fàtte la loolu il doit tout faire pour loolu bañ a dal. dina tal leneen lu dul politique. dina tal da ngay tal leneen parce mhm. gis nga il faut nga doon benn leader boo xamante ne Euh, yàlla may na la benn benn envergure bi nga xamante ne di gis ay manifestation di gis nangam ak nangam di nga gis di mais Bougane kan moo ko manifestel kenn mhm. commissaire Keita kan moo ko manifestel kenn Ahmed Suzanne Camara kan moo ko manifestel kenn Lat Diop ñun ñoo ko doon manifestel ci biir salle de classe lañ dajal dafa manifester. contrairement sax boo xoolee bësu bësu arrestation bu gaan Barthélemy Diaz moo ko jël moom mi doon xaw a defanteeg tuuti ñenn ci waa Pastef fii di ay saaga daal di fay jug. mais moo ko jël et mm-hmm. effectivement noonu la amee. te te bu campagne bi dooree da ngay gis ne ñëpp dañ koo fàtte. ñit ñi dem nañ enregistrer seen temps d'antenne Pape Djibril mu ko ci du public bi moo ko aaw du ñu mu dendaal ñoo ko aaw mais kon hmm. foofu tey jii pour man avec un peu de recul rek hmm. war na mën a xam ne mën a man joo ah man kat sama intérêt nekkul ci biir kaso mais ci biti la nekk ba lépp loo xam ne su ma ko waxee mën nañ ma yóbbuwaat kaso naa ko éviter parce que suñu fi tëjee kaso kat dañ may fàtte te bu ñu ma fàttee politiquement arrangé wu ma donc ma arrangé wu mën naa xeex nit ki mën naa ko combattre politiquement te du def dans duma def dans l'arrogance du ma def dans l'insulte donc damay am façon boo xamante ne dinaa dinaa dinaa ko defee mhm. su ko defee mu daal di bokk préparer euh, ay mbiram avancer di di def ay conférence parce que kenn terew ko ko bu Sonko génnee neuf heures génneel dix heures kenn terew la ko waaye lépp rek dee ko teg ci orma lépp de bu baax na loo xamante ne ci nguuru Diomaye def ko ah, nguuru Macky Sall buñ la tëjee waxuma la jugement sax mais dañ la fay leen a ñeme xam nga mhm. loolu affaire xam nga lu tax ñu ñeme leen nii mhm. mooy dañ leen a nanguwul parce que gis nga pression bi ñu leen commencé teg ak ni ñu exigence bi ñu leen doon bu ñu ko defaroon Macky Sall Macky Sall du yegg si ak ñun Macky Sall daa commencé jël Khalifa Sall teg na le jël Karim Wade teg na le. mais ñu ñu bari reculé plus ñu bari reculé kenn ñëpp toog di seeraan Macky mais ñii ne salaamaaleykum dafa sax at gars yi indi taxaw jatu taxaw taxawaay boo xam ne sax da ngay yéemu si yàlla donc loolu bu ko defoon Macky amaana euh, fi mu fi mu mujjee yegg ak ñun du fa yegg. Mhm. mais ñii euh, ni ñu nekk di def nii nag. ñu nekk ci pouvoir bi ils seront obligés benn moom ñu tourner jàkkaarloo ak ñoom parce que du ma topp diw boo ko déggee fi ngeen jëm moo soriwul. Mm-hmm. te loolu euh, j'imagine bien bu amul benn retenue bi après loolu lay parce que Bougane bi mu dooree la nga doon gis kenn du ko jàpp daa bëgg ko loolu nga doon dégg. Mm-hmm. muy wax lu ko neex. ñi dañuy fen ñi dañuy def nii nangam ak nangam ay daggkatu juuti simple ngeen nangam ak te gis nga daggkatu juuti simple boobu noonu moom mu doon waxtaanal mu ne. benn inspecteur des impôts moo ko mu ne moom xamul buy wax loolu moom il insulte à à toute une corporation. Mhm. bu taxawee ne yéen daggkatu juuti kese ngeen. mais inspecteur des impôts yi Sénégal yëpp traité nga leen daggkatu juuti mais est-ce que inspecteur des impôts ñëpp ay dagg seen liggéey si si si laaj impôt kese la yem loolu c'est méconnaître cette corporation kon pour man euh, politique mën na ànd ak élégance mën na ànd ak lu rafet mën na ànd ak taar. waaye ay daggkatu juuti ngeen nangam ak nangam daggkatu juuti yooyu ñoo yor réew mi parce que réew mi ñaar ñi ñoo yor mooy douane bi ak impôt yi waaw donc pour man euh, ay taxawaay la yoo xam ne war na ko changer war na ko rectifier su fekkente ne bëgg na am benn benn taxawaay boo xam ne dina ko am ci ci histoire politique gu Sénégal. Mhm. surtout boo xoolee ci am moom moo on dirait que dafay essayer di tibb tànk euh, Sonko maanaam daal di bëgg am même jaar-jaar que lui mën a marquer li nga xamante ne moom moo di ses wax naa leen ko nee naa leen Sonko Sonko lu doxul. da ngay jéem a bugaan bugaan lu mbaa nga amalu amalu mbaa nga bàttalimi bàttalimi ku nekk da nga am yàlla bindee da nga am sa marque de fabrique. Mm-hmm. man tey ji su ma xëyee bëgg ne lay nit yëpp mel benn ñebe si di leen nit ñi dañ bari la ñaa ngi fab xale yi de. mais loolu moo fi bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi fab xale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dugg suy nekk non c'est pas ça. Mm-hmm. affaire bi du sonk sonk lu nit ki da ngay am sa identité. c'est très important. Sonko mm-hmm. a réussi à avoir son identité. nit da ngay am homme politique da ngay am identité da am loo xam dañ la koy xàmmewee mais c'est pas pour rien ku ñëw. jëm ci ñoo ngi fab xale yi de. Euh, kii fii différence bi njëkk am sax mooy. ñu ngi Sonko ay turandoom lay kii dañ la ko tuddee teel. Mhm. bokkul ak ko yor ab xale rek mun ma xale bi ma tee mhm. pour man gaaw leen photo ma gaaw leen photo ma yëpp da nga koy da nga koy gis sonko sonko lu pour man amul benn sens mhm. li war ëpp solo mooy ku nekk nga am sa style ku nekk nga am sa yoon nga démarqué wu askan wi fekk la si la si bëgg la si jàppale la si walla ñu ñu bañ la si waaye Ousmane Sonko yoon bi la jaar ba yegg rek man yoon boobu laay jaar yoon boobu amul yoon bi Ousmane Sonko jaar la preuve Macky Sall jaaru fa Abdoulaye Wade tamit jaaru fa. waa mhm. ku nekk ak façon bi nga yëgsee Abdoulaye bi mu yëg si nu mu demee parce que boobu régime euh, socialiste bi def nañ fi quarante ans on avait plus besoin de soxlaatuñu régime bi bëggatuñ ko nangam ak nangam wala da ñëw gars yi ci ginnaawam. ñëpp ñoom bàcc li ñoo amaat dans sa xoo ñëpp daal def benn say ci ginnaaw ne ko yow la ñu temps yow lañu ñëwal nga jëlee ñu fi ñu fi nekk ñu dem ci dem élection ñu dem deuxième tour mu gagné Macky Sall nu mu ñëwee àndoon ak Abdoulaye Wade. Mhm. génn créer partem jàkkaaroo Abdoulaye Wade. élection jot ñii di xeex ak Macky Sall nekk place de la nation bi di xeex di xeex di xeex di xeex ñu ne ah bàyyi leen xeex bi ngeen dem élection Macky Sall ne rocceeku ne bàyyi leen xeex bi dem wëri ji campagne. élection jot ñu daal di jël Macky mu jiitu kooku bokkul ba tey ak kële ni amee woon benn groupe ak mbooloo bi mu ñëwoon parce que Macky bi muy ñëw y avait Ousmane Tanor Dieng y avait Moustapha Niasse mhm. donc ñu bokkoon à l'époque Benno Siggil Sénégal te gis nañ Benno ba ba mu tasee sax moo waral Macky daal di ñëw en embuscade gagné leen mhm. léegi loolu bokkul ak euh, troisième euh, pré euh, beneen président bi si toppaat di Bassirou Diomaye fay nga gis ne kon Ousmane Sonko dafa am yu bëri yu mu dund dafa am lu bëri lu mu jaar comme jaar-jaar waral mu am benn comportement am benn taxawaay bi donc sa identité politique li ñu wax sa parcours politique daf koy façonné maanaam parcours politique bi mooy tracer identité politique bi donc somme benn parcours la mais su fekkee yow da nga toog fële kii jaar na fi 2021 jaar na fi 2022 jaar na fi 2023 ba 2024 yow nga jógee na léegi xool ni mu yëggee 2024 da nga bëgg koo copier def ko da ngay juum. Mhm. donc loolu nag mooy doon nax ñoom ñu bëri ñu foog ne euh, boo defee lu Sonko def nga def ko wala nanga mën naka ba ci Bougane ba ci Bougane mhm. moom lañ fi gisoon tey jii wax li même expression Sonko la ba ñëpp doon ko si tooñ. boo ma bëggee. déjà moom nëbbu si dara sax parce que fu mu génnee midi mu génn 13h. waaw mais xam nga loolu loolu tamit loolu tamit pour man ñi koy. dimbal ci à la kilo non ñi koy dimbal ci communication nañ ko nañ ko yedd. Mm-hmm. loolu loolu baaxul Amina xam nga lu tax. Mm-hmm. su fekkee ne na nga ne su génnee 12h ma génn 13h c'est-à-dire yow sa génn xalaatoo xoolal génn Ousmane Sonko bu mujj bi bi muy génnee di annoncé ne day def meeting fële Dakar Arena Ousmane waxul ak militants la doon waxal ak yi. léegi yow boo génnee topp si lan ngay wax say militants ngay waxal moo tax bi mu génnee après man bi Ousmane Sonko ba dama naa man ban la buggaan war a tenir bi mu génnaate da doon répété li mu doon wax ci conférence de mu joxe amul sens ak apporter des corrections sans preuve amul sens donc loolu loolu loolu moo tax ma ne bu génnee midi ma génn treize heures loolu c'est à te na ko bàyyi su fekkente ne bëgg na bëgg na bëgg na bëgg na am benn benn tolluwaay bi ci wàllum politique parce que politique tamit stratégie la mm-hmm. da nga koy di ko adapter parce que mën nga def leen xam ne lii ma def nii du yoon bu baax bi après nga modifier ko corriger ko mm-hmm. alors Moustapha bu ñu foofu gis nañu ba buggaan ngeen ni itam euh, waa sàmm sa kàddu amal nañu seen nataal di yëgle ni daal instant bi nii nekk nañu au maanaam képp ku ca waroon a bokk bokk nga waroon a daje daje nañ ci ah waaw loolu am na de sàmm sa kàddu fi ñu toll bu doon équipe la ñu ne l' équipe au complet. onze de départ. onze de départ parce que euh, def nañ benn nataal ñu gis ci Cheikh Tidiane Youm gis ci Anta Babacar gis ci Bougane kon nag léegi mën nañu wax bu dee ñoom la dañ naan wër ba dem na këng. Mhm. mën nañ commencé dugg ci dëkk bi. campagne nag parce que man dama gis ne coalition la boo xam ne perte na lu bëri bu weesoo meeting bi nga leen gisee woon fële biscuiterie ñu defoon ko ah, fi gisaat beneen rencontre bu mag boo xam ne sàmm sa kàddu def na ko. waaw après benn visite def nañ visite euh, ci xalif taaleen bi après nga gisaat leen donc. est-ce que peut-être buggaan lañ mm-hmm. doon xaar mu ñëw ñu doog a commencé tournée yeeg parce que dégg naa tey war nañ def caravane si je ne m'abuse pas Tamba. Mm-hmm. waaw donc euh, da ngay gis ne kon euh, man dama jàpp ne bu ñu deful naa ko mën nañ accuser retard. par rapport ak li nga xam ne mooy campagne électorale bi maintenant nekk nañu au complet alhamdulilah léegi nag dinañ xool nu waaye mënee ak fu nekk naka lay def ak ful yi ndax dinañ drainer ful ndax gars yi nañ leen topp ndax ndax ndax yooyu yëpp après dañ koy soxla lecture ba parce que loolu moo taxoon ñëpp bëgg buggaan génn pour mu bokk affaire bu ubbeeku mu doon waaye xam nga mm. Amina dama koy faral di wax di ko répéter tout temps est xam nga ne campagne électorale moment de période de fête la Mm-hmm. campagne électorale période de fet la war a doon. parce que noonu la ko waxee sax. waaw parce que seen leader. Mm-hmm. gis nga seen leader dafay am ay gox-goxaan yoo xam ne campagne ba campagne dafay mën a teg tànkam. Mm-hmm. day am ay militants yoo ne campagne ba la ñuy nuyu seen leader mu nuyu leen. day am ay responsable yoo xam ne campagne ba campagne lay ñëw toog si biir néeg bi wala toog ci biir laal bi waxtaan ak waa kër gi campagne rek moo mën loolu. moo tax lu ne la ñuy def waaj ko pour euh, bu leader bi ñëwee ñu mën koo accueillir. tàccu ko tatagal ko mbégte ak moom saafoonte ak moom loolu période même mois de fête la léegi nag su fekkente ne dañu def campagne mu am ñenn ñu manqué ñi nekkuñ fekk yooyu wala ñuy def campagne par whatsapp ak yooyu du ñu neex dañu bëgg ñëpp ñëw bokk ci moom ambiance am rythme mu neex mu. am campagne par whatsapp boobu ngay wax moom est moom accès accès fi moom du yomb de ci whatsapp bi rek la mën a yem de wala def ay live daal. Ah,